xalé yi ñi ngi ñew moy xalé yi nga xamni ñom lañ jaglél bis bi moy moy lu toll ci ñaar fukki kang ak ben yo xamé ci dir juroomi at taré nañ fi nga xamni moy daara ji kon nak auto ya nga ne ku mané ku sa los bax rek ku sa los bax rek man nga gessu da melni damar ya commencé damar yi nga xamni ñoo ñoo jël so ñoo nekk né damar gu ñuul gi jitu geneen damar gu ñuul top ci ginaam ngeen daamal gu weex topp ci ginnaawam ku ci am caméra ba yeboo nga génnee ko ku ci am photo ba yeboo nga génnee ko ñu fas yéene ne tatagal fas yéene ne teeru ci barke rek alquraanul karim kon nag ñoo ngi noonu di wër na macha allah ah acca kon ku ci am photo ku ci am caméra génnee ko ñu tatagal tertu xale yi nga xam ne yàlla ngi dogal ñu ay tuut tànk tuut tànk seeni at weesuwul fukk ak ñaar te ñoom ñëpp mokkal alquran te mokkal fii ci daara ji nga xam ne mooy daare xam-xam ak jikko waaw macha allah daañ leen présenté ñoom ñëpp kenn ko daañ tudd fan nga jugee daañ wax aussi ban at nga mokkal ci daara ji kuy sa yaay kuy sa pa incha allah daañ leen ko jox ñoom ñëpp dëgg yàlla jaar nañoo tala alal ndeysaan te ñoom ñoom ñoom seeni photo moo nekk ne le ci affiche bële internat xam-xam ak jikko journée de sargal suñuy kaang journée de sargal suñuy kaang journée de sargal suñuy kaang ñu toll ci ni ma ko waxee woon sànq ñaar fukki kaang ak benn yoo xam ne ñu ngi fii ci biir daara ji ñenn ñi ah yàlla dogal samay doom lañ ñenn ñi moom samay sët lañ su ma àggee ci détails da ngeen xam ne tax ma wax loolu kon nag ñu tàccu leen sargal leen Oustaz Assane ñu daal dem teetu xale yi rek macha allah tabaarakallaahu waaw waaw allah ñu dem waaw voilà macha allah ñu dem teetu xale yi ñoom ñoo nekkoon di waaj waaj ñu ngi noonu ndeysaan ñoom kaa waaw ñu ngi noonu di wàcc seen vert blanc yu baax macha allah tabarakallah jaatil wada ndeysaan waaw walaay ndeysaan aha oustaz ñu dem teetu xale yi macha allah tabarakallah waaw waaw waaw ndeysaan ñoo ngi noonu ki nga xam ne oustaz Xalifa Aboubacar Mboup ànd ko oustaz ci daara ji oustaz Hassan ñoo nekk nu teertu ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi ñu doon wax nga xam ne ñu ngi mokkalee fii ci daara ji alquran karim waaw ñu ngi noonu ndeysaan toll wax naa ko sànq tollu ci fukki xal ak euh, juróom a fukki xale ak benn jugee ci ay gox ay dëkk yu fasantikoo fii ci diwaanu Louga loo ñëw ci ñoom ku ci nekk fan nga jugee noo tudd kuy say wajur incha allah daañu ci ñëw donc ñooñu nag mooy ñi nga xam tey ñoom la war a sargal ci bëccëgu tey bi fii ci Louga loo ci fi nga xam ni mooy bayaal bu den ak jàkkay di Seye ci daara ji nga xam mooy daara euh, xam-xam ak jikko te ki ko jiti oustaz Xalif Ababacar Mboup ànd ko mbokk daara yi macha allah ñoo nekk noonu ndeysaan wallaay ndeysaan mu may fàttali jamono jamono ñoom awaloo noonu lañ daan waaye mu neex bay bëgg a dee macha allah tabarakallahu euh, awa junjeer ne ko seeni jamono yi lañ ko daan waaye mu neex bay bëgg a dee dama bëgg laaj kii ginnaaw bi mu gisee xale yi lan la yëg kontaan rek macha allah kontaan naa trop di ñaan yal yàlla barkeel. amiin yaa rabbal aalamiina sama yaay booy yaa ngi gis xale yi nii fi mu doon nii xam naa ne yaa ngi ànd ak mbégte moo xam ni yaa ngi ànd ak mbégte moo xam ni kenn mënu koo natt nga wax ma loo yëg. sama xol sedd na trop am na commencement daal waaye amul yemukaay yàlla leen yàlla barkeel. amiin yaa rabbal aalamiina soxna Seydou Ndeye Lo acca yewit loo yëg. ndax kontaante rek lañ nga xam ne gis nañ xale yi di leen ñaanal rek barke alxuraan yal na wàcc ci ñoom ñu dund ba wàllaat ko ñeneen ñi ñoo nekk si biir daal bi ñëpp allah soxna Seydou dinaa njëgaloo. waaw xam naa bi xale yi suñu yaram daw na wax dëgg yàlla ah kontaan nañ trop suñu xol dafa fees ba mënuñoo wax sax bu baax ah leen di rek da yàlla barkeel. amiin incha allah yëkkati la ma mission bi DJ aywa. طلع البدر جينا جوكي يا داري اي شاواي لسان اها نيغي دوغو سي نك ايوا غن لين بورتابل واي ما تبان يا خير جا ديسان تاتي مسيس بوبو ليسان ما شاء الله تبارك الله مرحبا يا خير داع لسان ما شاء الله اها لسان li ci ne wax naa ko sànq mooy ku ci nekk bi nga paree ñu lay taraloo téere yàlla bi lu mat lu mat ay ñaari waxtu ñaari waxtu ak genn wàll ñetti waxtu lañ ko tari kon di jaajëfal oustaz yi bu baax a baax a baax ñoom oustaz Mayasin oustaz Xalifa Aboubacar Mboup di oustaz jaar ci daara yëpp ñoom oustaz yadd ñoom ñëpp ñu ngi jaar di ziar di di leen kontaan ñoom di rafetlu liggéey bi da ngaa demoon salon dégg naa macha allah tabaarakallah anañu waaw léegi ma présenté. ma ma présenté ma présenté sama kaang yi ma présenté sama kaang yi ma ci woo rek ku ma ci wax turam rek na jege si ñëpp xam ñu xam ne moom la barakallah fi jërëjëf DJ